loolay wax gi de ku may voteel moom kenn laa dul voteel damay xaar ba prochaine élection xool ndax Ousmane Sonko dina bokk yeewu leen nekk leen ay nit nekk leen nit Voilà. Ah. Amt am Kaumalan ATG Kaumalan mom mo ngi ci ay promotion mom néna ko comme nous len ko Moussa waxé xawma lan ki waxuma len ko dé ki voter na nga voter ko nga bëgg ça m'intéresse peu de Fayal waxuma kenn lenn lu ma wax mooy kuy votel na nga votel ku nga bëgg sama yoon newu si ce n'est pas mon problème ça m'intéresse peu waaw man ku ma bëggoon di xoole waaw sama carte dawuma dawuma si am ñàq waaw ko keneen nak mom ko am ko mu bëgg voter wala ko am lu mu bëggal ci ana le droit nga voter ku la neex voilà man mom moy loolu je n'impose personne rien à personne que chacun vote lu ko doy waaw foofu laa man Sonko moo ma doy waaw Sonko wu rien laa wax waaw man ñooñu laa bokk Sonko wu rien nu nelaw xaar ba prochaines élections Jomaa yaru na te am na diine focus rek waaw loolu c'est son problème Sénégal ñëpp yaru nañ ñëpp am nañ diine waaw nekkuma fii nii man je ne suis pas l'être humain kuy tànn ku yaru ku am diine man sama diine bopp moo ma tal waaw wala moom laa tal sax waaw sama diine boobu nu ma fexee man sama bopp ba yokk sama bopp diine nekk si diine gi am si fullaak fayda looloo ma amal njëriñ voilà le reste laa amalu ma benn njëriñ waaw l'avenir du Sénégal quand ça t'intéresse tu te bats pour tes propres idéaux tu ne fais pas du suivisme l'avenir du Sénégal m'intéresse avec la vérité Ah, avenir boobu man moo m'intéresse avenir deug. avenir futur avenir u xam lu nga bëgg Ah, ma lolo m'intéresse mais pas avenir xam nga topé wala am ñàq wala tëb di yuux cet avenir ne m'intéresse pas intéressé wu sérieusement Kenen nak mom am nga ci droit que chacun fait lu doy xalam

teg fii di kaañoo ñu xool looy tege non j'ai pas ce temps j'ai pas ce temps waaw waaw xaj nañ ma kii léegi damay yàq waaw xoolal man comme nu demee rek nen kii rek non je suis pas dans je suis garaaw na ba bëgg a dee waaw donc loolu daal na leer loolu na leer de na j'ai du mal j'ai du mal sax demb demb ma nekkoon naan sonko sonko waaw di wax li kii ba pare luma waxal sonko lepp ma dindi ko teg ko ne dem xol kenen top ko naan ko waaw yow mom yaay sunu ab j'ai du mal man xeetu nit bobu la j'ai du mal sama ngoor mayuma ko ah, sama ngoor mayuma ko mayuma ma toog fii nii di waxaat encore même chose ma doon waxal démb Sonko topp keneen di ko ko tegal parce que dama am lu ma naqari non man sama xol mayuma lool yàlla na nu musal si loolu waaw. ah, ah naa waaye ah. waaw Sonko moom dafa jub sonkoo kii dem ba gaa yi tuddee ko Seydina mu sell mi. expliquer ay affaire wax kii tourner même man mi ni togon di wax lolou la ñuy gisaat ma dem toogaat fële nan waaw jomaay mom waaw ke kek nangam lolou ban xeetu nit la ban xeetu nit man mom lolou moom wax deug fa yàlla mënuma nako je ne peux pas quoi franchement ma ngi jéggalu je ne peux pas ñu mën a dégg loolu noonu ñëpp moom mooy ñi nga xam ne ni que tey jii nii soo leen newoon Serigne Touba mooy yàlla nu ne la dëgg la waaw Serigne Touba mooy yàlla ku mën a dem ba mën a jël nit ñaari nit yu wuute boole leen nu def benn leneen comparaison bu nu def nga koo mën a nangu waaw Touba mooy yàlla donc kun ko wax si ñoom da wala mën a nangu waaw Serigne Touba ko wax si ñoom rek daa wala mën a nangu. ko wax for a lot of quoi si yow na ngeen yee seen bopp moo gën. bëgg pare bañ pare xaw lan élection moom day am moom day anam bu muy amee kay moom la ñuy wax waaye élection mon mon day am waaye élection dina am waaw ah, kay mom, nu mi amé rek lan wax ah, le reste là mom comme nu koy waxé mom affaire de choix là voilà affaire de choix ah, choix la rek affaire de choix ku nek lu ko doy lu make sense si mom, lu mu nat ba gis ni ko après mën na ko layal nga top ko en election day am de voilà ku dem ba meuna layal ni ko jomay moy sonko nga top ko ñu dem ba xam ni ñom meunu ñu ko layal tamit topp leneen khairun tamit ñeneen ak ñeneen tamit khairun wante dal wax gi mom moy tay ji ni moy loolu yep. je ne me vois pas nu ma taxawee sonko ma taxaw ko luma don waxal Sonko ma wax ko keneen luma ma yéene woon Sonko ma jox ko keneen man Camara je ne me vois pas dedans man la waaw loolu moom man la personnel. Mhm. Samba nee na qu'est-ce que tu proposes mon frère man samay proposition amul sens parce que lu may proposer maa ngi ko doon wax depuis le départ mais les Sénégalais ne sont pas prêts à ça les Sénégalais sont prêts à quoi dialogue waxtaan toog naxante gis nga li ni Sénégalais yi pare même sen jomaay moy Sonko bi suñu demoon ba foofu Macky Sall sàcc élection yi duñ def dara voilà dañuy emmerder waat nit ñi c'est un peuple qui t'ajoute de la souffrance wala nakadu xol parce que d'abord ko xam ni que ce premier leader yo ku nga bëgg ñew taxaw jël nañ ko te mëno def dara c'est pas deuxième choix bu ñew bu jógee fa bo xam que ne c'est pas encore bien familiarisé

moo tax ma naa la ñii dee ak nangam ngeen di wax ni yëpp de suite c'était rigolo lu wax ni lépp lépp lépp dara ñoru leen si ñoru si su leen ñoroon dès le départ da nga koy xam da nga koy xam voilà su fekkee ni que numéro un la gars yi mënul xeexal gëwuma ni que numéro de gars yi dinañ ko xeexal donc je me loolu lay wax ki le numéro un teg bi koo xam ne ni ko su génnoon dëkk bi fees. nit ñi mënuñoo génn xeexal ko jomaay mu lawet mii nii numéro 2 boo xam ne dafa lawet nee naa la sénégalais yu bari mii na gunu ko duñu génn duñu génn te c'est une logique c'est une logique voilà wax gi moo fi nekk rek voilà waaw loolay wax gi de ku may voteel moom kenn laa dul voteel

yaa comprendre waaw ah. loolu la rek sa waay nee na ko yow de bo bàyyee du nous déranger aussi wa l'ol kay déranger wul kenn faal Manchester United xaw ma lan soo bàyyee kek nangam loolu déranger wul kenn musuma ne daa am ku déranger ah musuma ne da am ku déranger bama dalé voter voté ñàkk ko voté musul am ku arranger wala ku déranger. yaa ngi comprendre mais seulement ni que nag comme que sama live la te man maay wax te tamit man leen laaj ma tontu voilà tontu ne ma ni que su ma kii ak nangam man looloo ma doy voilà xooluma yow lu la déranger yow ak lu la lu la lu la déranger man loolu lijjantiwuma ko man lu ma doy laa xool te man lu ma doy mooy ni que Ousmane Sonko rien waaw Ousmane Sonko su bokkulee voté ma kenn. voilà c'est moi encore une fois mais bro sensibiliser vous si vous avons une carte et dem votel Joma découragé bul voter, point ah le day Yom. c'est comme si nga pour que may life jomai di wasik jomai no non mënul ne mënul ne mënul ne loolu moom mënul ne waaw maa moom sama bopp kuma neex laay live ku ma neex laay waxal kuma neex encourager ku doy sama xel yow doy na sa xel yang si wax dafa lay live waxal encourager si nit ñi xam nga xana pa besoin ngay tourner di xol pour imposer nit ñi kal len wala waxal lan len wala waxal wala ñom nu nu wala def ci sen live wala lu nu war a def si seen téléphone ak seen pop xam nga ça ne sert yow mi toll na la foofu donne-toi cette énergie mu bil say page xam nga donne-toi le pouvoir génnal waxal mais man defuma waxuma si kay lu ma si wax moom ma lu ma si ñor maa ngi koy wax kay c'est léegi nag dictature bi su àggee ba foofu tamit mooy lu may faral di wax rek daf may xaw a jaaxal Mhm. daf may xaw a jaaxal yaa ngi comprendre yaa parce que suñu dekkee nee naa leen jëlagoo leen réew mi ngeen bëgg ñëw ak avec certains euh, mouvement ni wala seen position yi nii ak dictature ak imposer il ñi a am problème donc y su ngeen jëlee réew mi loolu mooy lii ngeen di def par force wala nangam ak nangam il faut il faut changer certaines de vos habitudes il faut les changer Yeah. il faut le changer moo gën si yéen Macky Macky bu muy président pour faj meer la ñun kan dofu ndax pour ba ñu koy fal faj et on a pris notre leçon ah si ñu jàng seen leçon ce qui n'ont pas pris leur leçon nak mom c'est leur problème man nak lolo ma yé motax topatuma dara si mer topatuma kenn si mer ba ma xamee ni Macky Sall si faj mer la ko topé won tay ji ni mu won lu ni motax nak légui nak bi pa ma daan man luma bëggal som bop te bëggunuma ka jox sun mako joxulé damay noppalé ko mais duma ko def si faju mer duma topé yenen yeneen mer parce que ba ko defee bee passé ça m'a coûté cher voilà ça m'a coûté cher ça m'a mené avec un président 12 ans bo xamné ni mu nu musiba

Si ma am damay je te comprends bro mais restons optimistes Diomaye fait partie intégrante de Pasteur. Comprends que c'est un projet mais pas la personne de son côté. xam nañ ko bu yàgg loolu mais xam le problème moom euh, on sait bien que c'est un projet ce n'est pas une personne mais wax gi mom moy tay même la personne qu'on essaie de pousser pour venir continuer le projet Le projet bi di taxaw n'a pas fait ses pas pour que nit ñi mën koo wóolu pare en cas échéant c'est ça le truc voilà ça c'est ça le truc Tay di ni jomay wax gi wax gi moy mom sax avant que koy nommer, quelque nangam il n'a rien foutu il n'a rien foutu c'est ça le truc Mais dans la localité on il n'arrive même pas à gagner là-bas parce qu'il n'a rien foutu il n'arrive même pas à gagner d'où il vient sa propre localité Vous comprenez c'est ça le truc quand on met un numéro 2 on doit pouvoir mettre un numéro 2 qui qui est à la hauteur du numéro 1 c'est ça mais wax fi fexé ba jëkkati jomaay tek ko si même ya a pas le niveau Ousmane Sonko rien que son nom do doon joxe ay ay position do doon fal nit Ousmane Sonko rien que nga and ak mom do doon fal nit waxatuma ak mom si bopam bu mu ñëwé taxaw projet bi fal leen ñom ñëpp jox leen ku si nekk salaire jox leen liggéey mais loolu du si jomaay jomaay buñ ko téggé ci terrain bi mu wala def ay prouve wala prouver jàkkaarloog askan bi wane mom position mom si bi parti gi génn jakal kenn gisuko C'est eux qui ont fait le problème parce que Sonko de ça affaire ils n'ont pas accepté de faire leur fonction Sonko moo yore toutes les rênes Sonko su fait si Ils ont ñëpp Ils du fait. Sonko tout donc là c'est là le problème Jomai ne peut rien prouver Jomai à lui seul il ne va aller nulle part nulle part.

tu le vois partout, il remporte des choses, il fait un travail. Guy Marius Sagna, c'est mon actif. On doit se dire des vérités et arrêter de se voiler la face. ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni que ñoo ngi si biir Pastef ñoo gën a actif ko ba si le petit sax gagne des Touré même si souvent ça je le jette des pierres je raconte ma mère de sur Ngagne Demba Touré même Ngagne des Touré a plus même d'apport que jomaay tout. Regarde. ça le truc. Thomas n'a pas pu, elle n'a pas fait, n'a pas préparé lui-même son terrain, n'a pas préparé lui-même la succession. Les choses servies sur le plat là, c'est trop facile. Les sur le plat. Ça fait un anena ko Moussa ben benn carte d'identité rek nga yor tak ta sa vote soxal wuñu ko kenn woowul la tamit li ngay wax bari na lool ah mais sa way degol ma sama ben carte ak lu may wax ak lu may kii ak ku soxla ak kuma ma wul ak loolu non lepp du problème voilà loolu non lepp du problème problème bi moy ya ni di wër di expliquer di xol ku ñu soxla ku ñu soxlawul comme que yeen kay tol na len foofu walon ngeena ñak jot instant gi ni comme que yeen ki wal ngeena nek ci luy doxal jomay comme temps bi ni ngeen fi nek di commenter di expliquer walon ngeen ko gëna dem def di xol nan ngeen di def ligéyal jomay mo gën si yeen ngeen ngi comprendre loolu rek la leen nee wax na len ko dès la départ lii ngeen bëgg pour nu kiyee ngeen profité bàyyi coow li fa la ñëw di xool ku ngeen di xuloo woon man aw ma seen jot aw ma seen jot xuloo ma xuloo ma voilà yéen a ngi noonu doy na leen allez-y campagne voilà campagne yi ubbi campagne voilà campagne moo gën si yën de fii su ngeen fi toogee di am lu ngeen di expliqué nii Mau dengan bapak? Hah? Hah? Mulai dengan disonasan pokok. You don't even need that word. I know, but I want you to. There you go. Sure, not not your hair, Harrison. Eh, eh, eh, eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un de Ça m'intéresse peu. ce que politique là. Toute notre vie on a entendu ça. Ah. Macky Sall m'intéresse pas, c'est un penseur. S'il était si bon penseur que ça, il aurait dû gagner sa localité. Comment il n'a pas réussi à penser pour gagner sa propre localité Voilà, aux élections locales. Un bon penseur commence d'abord par, voilà, gagner d'abord ses combats. Mais un bon penseur, un grand penseur qui ne gagne rien, il doit réfléchir encore comment il pense. s'il était si bon que ça, hmm, s'il était si bon que ça, il aurait dû remporter sa localité. ah, wax non. Ah, ah, je suis dans d'autres domaines je ne suis pas dans le bluff ah, je ne suis pas dans le bluff ah, quelqu'un qui est bon à ce qu'il fait fait des preuves yaa hein, comprendre je suis quelqu'un de logique. Je suis la logique, je ne suis pas le, le, le, Tu es bon à ce que tu fais. Tu dois pouvoir faire des preuves. Voilà. Ça bien. comme qui c'est juste un facho mécontent. Wow. Makimon, c'est un facho mécontent politicien qui fait sa politique de chevalier très bien. C'est la politique chevalier chevalistique dañ koy xoolee de chevalier il l'a fait très bien ça nee est ko Ousmane Sonko sunu sunu waxoon voter leen ci Adji Sarr moom leen ñuy voter te gars yi yàq sa temps waaw parce que yéen un nit boobu ngeen xam ngeen waaw ah, raasu nit boobu ngeen waaw ah, man nag xam nga ban raasu nit la raasu nit bu nga xam ne ni ko Ousmane Sonko ba muy enregistré vidéo bi di ko ba mu naan sax moom su sañoon su sañoon vidéo bi kenn du ko mus a génne raas boobu noonu woloon taxaw nag fexe nag ba sañ ba vidéo bi du mus a génn man si raas boobu laa bokk voilà les nag je vais accepter ni que on a échoué voilà on a échoué pour def fexe ba vidéo bi bu mu man si race boobu bok. bokk bok bokkuma si race boobu race bu nga xam que dañuy toog di xaar don ay défaillant ba nu génnee la leneen nga toog say top. yaa ngi man nek ni yéen yenn cinq cent gi nii da ngeen topp si A plan B boo xam ne duñ koo jëloon te amuñu woon yéene te bëgguñu won mu génn parce que lu tax yaakaaroon nañ si

Well done, sir. Right. Now I just need to pay. Yep, I'm gonna, leave your paperwork actually here. Yeah. So you just take your time making your way up there. There's no rush. Car's up here, ready to go when you're done. I appreciate it, man. Thank you so much. Not a problem, sir. I don't have to tell you anything. She's in great shape. And... In great, I do my best with this, man. that's my first car I buy with my pocket and brand You're doing a great job, bud. Just Every well. time my wife even I'm taking. just because this time is cold, that's why I have a little bit messy. lan ngeen di expliquer si worma waaw yéen seen bopp est-ce que yéen wormaat ngeen seen bopp wormaat ngeen seen seeni sëriñ wax gi foofu lay tàmbalee voilà worma